Ousmane Sonko doole bi ko yàlla jox te ma wax ko rek def naa sunu jotaay bu mujj bi li ëpp ci ndaw ñi moom la àndal. ñu bëri itam ci mag ñi moom la ñu àndal. nga xam ne yàlla dénk na ko ku nekk. ku mel noonu am mbooloo bu toll doon nga xam ne kàddoom bu jogee rek ci luy yee fitna kenn xamul loolu fu mu yemee. nga xam ne mën nga wax ne. d'une part mën na nekkee lu mën a nekk la. lu mën a nekk la ci élection bañ a am. Mhm. lu mën a nekk la ci réew mi dem ci kaaw donte ñu bari dañuy gis ne loolu xëy na euh, mooy porte bi mag jéem jéema ubbeeg yooyu. waaye daal gisuma na dañ ko war a dañ ko war a dañ ko war a empêcher nañ ko bàyyi mu dem ci élection yi loolu mooy li jaadu. jërëjëf mbokki internet yi bu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeen tey nag sëñ bi gaañ yi ñoo ma ñaan internet yi nee na sëñ Fallou bu ñu sañoon chaque weekend ñu di ko gis samedi lay doon wala dibéer ndax ñor goo xamante ne que waxtaan wi ñor na leen ak njariñ li nga xamante ne que am lañ ko ci jëflante bu rafet bi nga xamante ne que ñu ngi koy jëflante ga waaye boole ceeg di ci am ay résultats yu satisfaisant kii nag dootuma ko présenté Serigne Fallou Dramé cër ci sëñ Moussa Dramé borom daaru Pakacar neewoon naa leen saa may def émission sama wax ja maa ko garanti tekki ne leen wallaahi barke sëriñ Mbàkke Madina maa ko garanti sëñ Fallou ñoo ngi lay nuyu di la ziar di ndokkeel bàyyi la nga nuyoo ñi lay seetaan euh, ci Bprod ci jamono bu ci ne. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina wa mawlana muhammadin wa man wala fa radiallahu taala anil abdil xadimi ridan yasmulul ala wa cal kalaami rasidan wa mursida wa fikrati nawir wa xalbi arsida asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu buur maa ngi lay nuyu di nuyu sëñ Duudu mi nga àndal di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñu ngi seetaan ak fu ñu mën di nekk rek ci biir réew mi ak ci bitim réew waaye itam di ñaan yàlla mu def jàmm ci biir réew mi def ko ci bitim réew incha allah. sëñ bi gars yi nee nañu dañoo bëgg benn émission hebdomadaire boo xam ni chaque semaine war nañu mën a gis sëñ Fall Dramé sur Bprod waaw loolu de ndeysaan li ñuy d'abord dañuy njëkk a wax rek nag ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi leen di bëggee ñoom itam ndax sopp dafa dafa am doole euh, ndax euh, ku ne lay seetaan ñii dañ lay seetaan ci wàllu xam-xam ñii di la seetaan ngir seen yi tey bopp ñii di la seetaan ngir safoo la bëgg rek te te yàlla rek tax te boobu nag euh, mooy bi ñu gën a bàyyi xel nun ndax bëgg te yàlla tax dafa am valeur dafa am dayo bu mu am boo xam ne leneen amul ko xam nga yonentu bi sallallahu salaam wax na ci hadis ne bis bi nga xam ne euh, benn ker amul lu dul keruk aras ak keruk liwaaw la xam xamd bu ko mooy kenn ku ci nekk sa say sarax mooy nekk sa ker gi ngay kerloo bisu bu yomal xiyaam dafa wax ne dafa am ñett ñu nga xam ne yàlla dina leen wax woo bañ wuyu leen mun leen yéen ñëw leen dugg aljana bi mu koy lim da ciy boole woon nag ñu bëggante te yàlla rek tax bëgg boo xam ne dara la lalu ko gis nit ki sopp ko te yàlla rek tax lu am doole la. boole woon na ci itam kiy joxe te joxe bi muy joxe loxo càmmoñam yëgul ko c'est-à-dire kuy joxe loxo ndeyjoor ngay joxe sa loxo càmmoñ bi yëgul na sa yaa ngi joxe mooy joxe boo xam ne yaa ngi koy nëbbu te kenn yëgul ko donc loolu la kon loolu kon defe naa lu am am solo la. dégg nga beneen bi ci des mooy ki nga xam ne dafa wéet ak jigéen ju mel nam war a mel ci taar. ba noppiit doon borom alal ju bare soxla la ci boppam ngir loo ko defal muy ci wàllu mooy yàlla nga réfugié wane na borom bët bu rëy bi mu ngi lay gis. nee na keroog gi tam kooku dina bokk ci ñi nga xam ne yàlla dina leen woo ba ñu wooyu mun la ñëw dugg ñëw leen dugg aljana donc kon ñoom itam ñu ngi leen di safoo bu baax di ñaan yàlla rek. Eh, fu ñu mën di nekk rek yàlla na leen yàlla taxaw ci seen yitte yëpp ci biir ak ci biti incha allah. suñu mbokk Gambie moom bëgg nañ nga ñëw Gambie moom. lool sax lool lool lool man sax su ñu jooyloo ma ko. ma di ci nuyu maa tuuti bu baax a baax a baax bi suñu xarit moom tamit ndeysaan bu nekk fële ci de ndeysaan waaw ñoom ndeysaan dañoo dañoo dañuy dañuy borom pas-pas te ñoom it ni ñuy ni ñuy bëggee dafa am doole ndax. dañu nit ñu dëggu itam te amuñu tirise duñu tirise waaw duñu tirise dañu nit ñu dëggu te loolu dafa am solo wa kuunu ma'a saadiqiin loolu alxuraan moo ko wax nee na fexeel def lépp loo mën ba bokk ci way dëggu ñi te loolu dafa am solo dama gis ci ñoom dëggu dama gis ci ñoom loolu donc nit ñu sérieux lañ ñu dëggu lañ ñoom itam ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax incha allah loolu saa yu ko jot mayee rek incha allah daañ fa doxantu bu soobee borom bu baax ñu ànd Gàmbi bu soobee yàlla yéen suñu mbokk jàpp leen ni euh, suñu yoon bii di ñëw soxna aada lay àndal waaye incha allah gëm nañ ni boori tam ja ba noppi buur dina ànd ak équipe bi Promédia ànd ak sëñ Fall Dramé ñu ne cëpp Gàmbi jël hôtel bu soobee yàlla soppe yëpp fekk ko fa ak borom aajo yi sëñ Fall tey da am na combat bu am waaye xam nga kiy bëre jabar ji nag moo tax xëj na muy papa buy jine te war a dajeeg Nandi Fall euh, combat boobu. waaw euh, xam naa bu dee xaw booy jine la xaw ci li nga xam ne moo feeñ nii ci wàllu seet wàllu xadat mel na ni moo ci feeñ man nag baaxuma di wax diw mooy daan wala li dina xew suba loolu baaxuma di ko wax eh, waaye daal surprise it mën na cee am nag bu mën a moo ci feeñ tekkiwul na moom mooy am ndax itam damay wax ne wàllu làmp dafa nekk lu compliqué loo xam ne mën nga seet ba gis li nga gis muy loo xam ne dara du ko dindi ñu dem ba ca tàkkusaan ba wala ba dara desul lu sëgg bëre am ku ko wutu ginnaawam defal ko sarax boo xam ne tegtal la buñ ko tegtal donc yooyu yëpp dafa bokk ci secret làmbu làmbu wax naa ne du loo xam ne doole rek moom doone donte doole mooy baas bi waaye léegi ci wàllu mystique daanaka mën nga ne quatre-vingt-dix pour cent yëpp daanaka mystique la la ca des mooy doon doon leneen la. bu ko defee nag surprise teewul mën na cee am ndax sarax si nga xam ne. feej dina ci te xay na mën naa am bu këlee amee sens ba def ko nu mu tudd nandi laa bu amee sens ba def sarax boobu su boobaa mën naa am victoire bi waaye bu fekkee na amul sens ku ko tegtal boobee sarax ba ñuy sëgg bëree su boobaa moom day ñàkk làmb bi. Mm-hmm. sëñ Fallou Ousmane Sonko tëkku na ne su ma bokkul ci élection yi y aura un chaos indescriptible maanaam dëkk bi. Euh, mën na takk fu ko waay nat dina ko romb Macky Sall tontu na démb ci journal Le Monde ne amul mbindeef bu yàlla di sàkk bu mën a tee élection yi déroulé ci ni mu war a déroulé. waaw président de man damaa war gisul lu war a tax ñu ñu empêché Macky Sall eh, déggal Sonko ba du bokk gisuma ko ñaar a tax moom bu fekkee ne day bàyyi day dem waaye bu dugalee ci bopp rek eh, nit ñi mm, dina am benn eh, nuñ ko nuñ ko tuddee benn benn benn. non non waxuma loolu sax mm-hmm. xëy na lu justice war a génne loo xam dañ ko war a appliquer. Mm-hmm. benn décision de boo xam dañ ko war te lu mu laaj daañ ko def ngir appliquer ko mm-hmm. loolu su boobaa effectivement euh, beneen hypothèse bi ñu bari di teg te mooy président bëgg na réew mi nekk en chaos ngir ñu mën koo yokkal ay ay kiyam ay ay mandatam 200 wala 200 ay plus. donc boobaa ñu baree bari fi ñu doon gisee loolu mën naa nekk ab porte ab bunt boo xam ne buy ubbeeku la pour moom. ndax bu fekkee ne xam nga dañuy wax ne Karim wàdd ak xalifa Sall yëpp kenn ku ci nekk dafa luubal alalu askan wi muy lu ñu topp ba mu leer dégg nga kenn ku ci nekk itam ñu teg la ay daan yoo xam ne loo war a fay la euh, loo war a fay senegal yi ndigam ñooñu la ñu jaar ci yoonu ngir jëmmal leen baal loole loo xam ne askan wi la pour baal leen ko ñu bokk nag ak suma ki nga xam ne lañ wax ne moom lañ ko doon toppee dem na ba ci bis ba ñu noon deful loole génne yeneen i mbir kooko wax gisuma ne xeñ ko ko lu xel mën a nangu la ci logique xel mën ko nangu bu fekkee dañuy pardonné rek ndax boo fekkee da nekk njiit mooy booy baale da baale ñëpp te loolu yonent bi jàngale na ko salaale alayhi wa sallam dafa am ku ñëw ne ko dama may sama doom diw nangam mu ne ko mbaa may nga ñëpp mun ne ko déedéet mu ne ko lool kenn du ko def loolu du màndu ça ça veut dire que kon bu fekkee danga nga njabooti ñëpp booy jéggale jéggalal ñëpp mooy mën sañ ne jéggal naa kii jéggal kii yow jéggaluma la te ñaar ñi nga jéggal la ñu def euh, gënul yées li kii def donc loolu gisuñu ko noonu beneen bi ci des mooy Ousmane Sonko doole bi ko yàlla jox te ma wax ko rek def naa sunu jotaay bu mujj bi li ëpp ci ndaw ñi moom la ñu àndal ñu bëri itam ci mag ñi moom la ñu àndal nga xam ne yàlla dénk na ko ku nekk ku mel noonu am mbooloo bu toll doon nga xam ne kàddoom bu jógee rek ci luy yee fitna kenn xamul loolu fu mu yemee nga xam ne mën nga wax ne d'une part waaw mën na nekkee lu mën a nekk la lu mën a nekk la ci élection bañ a am lu mën a nekk la ci réew mi dem ci kaaw donte ñu bari dañuy gis ne loolu xëy na euh, mooy porte bi Macky jéem a yooyu waaye daal gisuma ne dañ ko war a dañ ko war a dañ ko war a empêcher nañ ko bàyyi mu dem ci élection yi loolu mooy li jaadu loolu mooy li jaadu mooy li mooy loolu mooy li gën waaw ndax itam gis nga li ëpp solo daal te président Macky Sall def naa wax na ko ci biir discours am bi eh, bi jàll bi muy bi muy wax na du bokk mooy réew mi rek moo am solo parce que lu mën di xew ñun ñii daañu fi jóge ñeneen wuutuñu te mi moom day des kon nit ñi ñooy dem di fi fekk di fi bàyyi di fi bàyyi réew mi réew moomu nag pour man moo am solo fexe ba euh, sàmm réew mi fexe ba aar ko ba nga xam ne li fiy feeñ ci ay ressources ñi di ko tudd ñu mën ko jariñoo ci anam boo xam ne daa ñu tal mën a liggéey waaye réew mi am na fu ñu koy dugal rek su boobaa nit ñi dootuñ tal liggéey te ñaari at yëpp nag Sénégal liggéeyuñ ci coow rek lañ nekk coowul politique coowul politique heure bi waroon a fekk nit ñi ku ne di wane sa programme ñi dem élection yëpp ñu xam leen diw ak diway dem ñu xam ko ba noppi kii parrainage bi itam ay bolokaas la loolu defe naa waxoon nañ ne sax du loo xam ne lu démocratie nangu la waaye gis nga ba tey taxul ñu dindi ko su ko defee yooyu yëpp defe naa ne war nañ ci jéem a liggéey daal bu baax a baax. sëñ Fallou ñu ñëw nag ci wàllu ñaan yàlla loolu actualité la sañ na ko dama wax ni ëtt bi mu bokk mbooloo mi leen yàlla may buy àddu day àddu ci Sénégalais yi ndax dañu wax ni ku jiite mbooloo bu wax jotee rek euh, war ngaa wax. Euh, ku dem diggante Saloum Kaymoor ah, euh, ba Daaru Pakacar xam sëriñ Moussa góor yàlla rahimahullah li ko sunu borom defan sëñ Fallou alluwe xànjar wi moom sunu mbir la. man buur moom xam naa ko xàmme naa ko ñiy jëflante ak yow it nañu àll wi wi surtout ci wàllu nopp. waaw nañ ko gëj nañ ko génne gëj nañ ko wane euh, ci itam ci loolu nga njëkk a tudd moo ëpp luñ koy jëfandikoo mooy ci wàllu nopp nopp mooy boole ñaar waaye nag fii damay wax ne toujours rek mooy fii ñuy mujj mooy fii ñuy mujj ñëw boo gisee ñi jëfandikoo ko rek xamal ne kooku day ku jëfee noot lool. wala mbiram di naari yu nekk mbiram nekk naari yu sawara su boobaa la ñuy jëfandikoo alawee xànjar bi nga xam lii ngay gis ni ab xaatim la buñ ci dog gis nga ko mm-hmm. moom nga gis ni léegi xaatim bi léegi turu ki ñu noob rek mooy ne ci biir bu dee fii nag moom turu ki noob la du ñëw bokkul ak bu fekkoon ne lu ñuy gas suul wala lu def ci meew wala lu ñuy sànni ci géej ak yooyu wala lu ñuy def ci nen ba yooyu ay xeetu xeetu noob la noob rek moo fi nekk léegi nag boo wirdoo wirdi yi ba noppi mooy turu yàlla yi ma wërale ko soo ko wirdoo ba noppi nag am na ñaan gooy def ñaan googu nag foofu la turu kii noob lu di ñëwaale door a duggaale waaw dégg nga dégg nga foofu lay door a ñëwaale dégg nga waaye ci wàlluk noob alawee xànjat ñi ko xam dëgg dëgg te xam xelmul xawaatim xelmul xaati xawaatim damay wax ne xelmul xawaatim ku ko mën dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dañ jàpp na yow am jabarkat nga sax mm. waaw daanaka loo def day sotti day sotti ndax day xam-xam bu wóor boo xam ne làmbatu mënul ci am ni ma koy faral di misaale un plus en deux rek la mën a joxe xam nga loolu lu simple la waaw xëy na ay deux yooyu yeneen i kii la waaye <laughs> ay beewu carré xaw ma quatre mooy c'est à nangam loolu delta waaye li am solo fii mooy lu simple rek mooy un plus un moom deux lay joxe lii tam xam-xam bi noonu rek la mel bu fekkee nit ki mën naa dagg xaatim xam bu àddatee tur ba noppi lan la ciy wàññi ak naka la koy diffuser mm. ak madaxal bi tam da ci am solo ban kër lay njëkk a sol ak ban lay mujj sol mm. mu bañ a juum nag parce que boo juumee rek safaan ngay indi xaatim moom loolu tax mu dansé saa yooyu juumee rek safaanu junne yu baax mënu ko defar mm. loolu dëgg la moom borom xam-xam xam nañ ko junne yu junne yu baax mënu ko defar xaatim bu damm dafa dansé moo tax mag ñi lu néew lañ daan jëfandikoo xaatim nag donc dafa nekk lu dansé moo tax ci wàllu noob lañ koy jëfandikoo maanaam képp koo xam ne am nga koy bëgg am ci pas-pas ku nekk sa soxna wala sa borom kër wala ngeen doon ànd ba ci biir ànduk nawle ba ci biir mu bëgg la bàyyi. waaw dem ba xam nga ànd nag dem ak nit ki ba miinal ko sa xol bëgg a génn noonu rek ko ci baas bu dëgër su mën nañ ko delloo si jaaree ko fii ci alway xandëj mu neex ko mu naqari ko far force bu ñu ko dugalee fii ba def wirdi yi kenn mënul tee ba du gis keneen ku dul yow yow rek lay gis ci àddina fu mu mën di nekk itam dina dellu si boobu benn la ci beneen biñ koy def mooy wàllu noot bokkut ak nopp bi tasxiir lañ koy wax tasxiir mooy tàggat nit kii ci waaw par exemple rek sa doom bu jékki-jékki tëla nga bëgg ko xiirtal ci sa bopp ba nga xam ne dana la déggal foo ko yónni mu dem loo ko tere mu bàyyi loo ko digal mu def loolu mooy kii wala nit koo xam dafa bëgg am déggoo ak patron wom boo xam ne xëy na dañ leen a dëddale wala boo xëy na patron bi nam ko daan juboo da di diisoog moom di waxtaan ak moom yooyu gis na ne mu ngi koy commencé perte gis nga confiance boobu ñu fexe ba mu dellu si donc foofu la ñuy jëfandikoo alawe xànjar alawe xànjar wi lu doy waar la lu bari la donc dama ci tudd ñaar yooyu rek ndax mooy li ci gën a sew ñaar yooyu moo ëmb yeneen yi ci des moo tax ma tudd ñaar yooyu waaye dañ ko jëfandikoo ci ay façon yu baree baree bare bëri dañ koy jëfandikoo ci ay façon yu baree bëri métti bi mooy yow mi wird cuuraay bi ngay taal da ko war a xam te ca cuuraay bi mënu ca ñàkk boo gisee cuuraay yu bari yi benn bokku ci sa morom loolu moo tax donc voilà loolu moo tax cuuraay bi ngay taal boo ko di liggéey da ko war a xam dégg nga bu fekkee nit ki itam danga war a xam biddiwam ak wan waxtu ngay topp pour def wird bi donc yooyu yëpp da ciy compter daal. yooyu yëpp da ciy waxoon naa leen ko àlluway xànjar wi njariñam dafa bari sëñ Fallou kii ba tey ci wàllu ngóora lay dox wàllu ngóora il faut mu leer. waaw bii wàllu ngóora lay dox euh, bii nag. alxuraan lañ ko liggéey ak ay tur yàlla waaye dafa am lu muy àndal loo xam ne dafa am période yu ñu koy mën a wut. bu période waaw waaye période boobu bu jàllee du mu ko mën a amati. foo ma bàyyi ba déwén. bu yàggoon yàgg maa ngi doon génne mos naa ko génne ci forme butéel bu ndaw. Hmm. daal dina ku ci naan ñetti yoon bu la neexee bul ko laalaat. bàyyil waaye nag de de de déedéet waaye nag moom ab diir la maanaam du doon loo xam ne chaque jour bu nit ñëwee fekk ko fi. ndax lañ ci lañ ci mën a wut du doon lu bari te ab jamono nga koy wut ab waxtu nga koy wut. donc moo tax waa génn génnam yombul nag moom moo nekk nii. nit ki xam nga wàllu tële wàllu ngóora. ñu ci bari bari dafa am forme yu mu leen di dikkee ñi seen awra day dellu di tuuti day dem ba mel ne bu xaleel sax. ànd da nga koy xool xool xool di rus. boo xoolee sax da am kersa da ngay tiit sax am ñoo xam boo xoolee da ngay tiit day dellu dellu ba tuuti. am ñoo xam ne du loolu waaye dañu gaaw yëg seen bopp bu ñu bëggoon a def kii am ñoo xam ne pour ñu penetre sax problème lay doon. yëpp ay jafe-jafe la yu bëree bëri. jafe-jafe itam waxoon naa ne yu koy sabab dafa bëri mën ngaa xam itam ndax rab la wala dañ ko liggéey wala wéridi yi rek moo ñëw yu jógee ci ñam yeeg yow. du jàmbat télé rek ñëw nga jox ko. dama koy xool ba xam damay damay xam bool ba xam ndax rab la ndax moom mos naa ci joxe ay signes na bu fekkee par exemple nit ki bu demoon a dem ba nga xam ne ñaari awra bu ñu dajee rek eh, nit ki yegg fa mu jëm ñaari awra waaw loolu moom rab la yow doo du ngeen jot a foofu moom kër gi moom xuloo rek ay am ndax yow moom alaa kulli xaalis mënoo mënoo jox soxna si benn benn plaisir loolu jafe-jafe la beneen bi mooy awra yi daañ laalante waaye du yàgg xay quelques secondes lay jël du yàgg quelques secondes rek waaw mën naa sax dem xay na ba une minute ak yooyu waaye daal lu am solo mooy du yàgg moom nga daal di yëg sa bopp loolu wax ma fu mu amee takk xala la waaye takk xala dina ko waral am na bu ko gën a yàgg tuuti nag boo xam ne it yooyu yëpp nag yi forme yëpp lenn lu ci nekk mën naa ànd ak awra bi bañ a dëgër ndax awra it dëgër bi dañ ko ciy xamee góor dafa war a dëgër waaw dafa a dëgër dafa war a dëgër ndax mooy tax mu mën dafa war a dëgër mooy tax mu mën a pénétrer bu baax a baax donc loolu da ci am solo nit ki nag awraam bi mën na tuuti bu fekk xam li ci dansé mu wóor ko ne tollu loon nii dafa tuuti léegi waaye jëmmi jëmmi tuuti awra bi rek loolu du du du feebar bu fekkee noonu la mel li am solo mooy na am puissance bi te mën a penetre te bu mu gaaw wàcc loolu moo ci am solo waaye daal ku yàlla dogal du ñëpp ko war a am nag bu ñu xoolee ba gis nga woon nga ko am ku yàlla dogal nga am ko moom sa aajo moom ci wàllu woowu mu faju na moom. ci sa aajo ci wàllu woowu pare na moom loolu mu garanti la moom waaw. Mm-hmm. dootu leen ko defati de li muy wax lu leer la lu leer la yéen ñi jëflante ak moom euh, gis ngeen ci seen bopp sëñ bi kii nee nga ma sànq ci wàllu défense lay dox ndax cangat la goo dafa ànd ak ay puso. xam nga nit ñi dañuy yàqante. lu ci baree bari da ngay gis nit ku kuy am di am di am di gañe ay marché di liggéey di am di liggéey di am di liggéey di am ay millions wala ay milliards di gañe ay marché jékki-jékki rek commencé di reculer deltu ginnaaw deltu ginnaaw ba ñàkk li mu amoon lépp ba ñi ko doon safoo ñëpp wan ko ginnaaw tey toogal toog sax naan waaye xanaa du man ñii laa doon dimbale de ñëpp koy wan ginnaaw ndax nit ñi daanaka li ci bari ak mën la ñuy ànd ak nit boo tëlee moom ñëpp lay ginnaaw daanaka ko defee lii solo bu fekkee ne def-def moo nekk sa yaram wala cat wala rab wala seytaane yu ci mën di doon ci yooyu cangat bii puso puso yi muy àndal nga sangoo ko mm. dégg nga ah, juróom-ñaari nga koy sangoo sept jours puso yi muy àndal mm. nga sangoo ko ak doj doju doju kii doji tali yi yu ñuul yi waaw wala bu weex bi rek nay doj rek wala bu weex bi ñuy bétonné mm. mooy doj ñu bétonné rek dégg nga doj yooyu tamit moom nga koy booleel ak puso yi nga sangoo ko képp koo xam ne moo la liggéeyoon moo la defoon ab liggéey ak ku mën di doon te moo ko tey lim ci jubloon mooy lor la moom du ko fekkee bu dee ngoon la jant du ko sooy bu dee guddi la bët du ko fat dina dina dox ñëw dina gis jaxaran ci lu dul nelaw lu ko yéem loo xam ne dina waaxu ba ci yow jéggalu la bu ko deful dina faatu waaw bu ko deful dina faatu kilifa gi ma doon jox lii dafa am ku mos a ñëw ne ko biñ julee tàkkusaan de diw ak diw dañoo demoon ci àll bi di la liggéey mu ne ko mbaa yow bokkoo ci mu ne ko déedéet mu ne ko boo ci bokkee waajal waaw balaa jant ba soñ ñi ko doon def ñëpp faatu nañu te loolu mooy dëgg ndax loolu lislaam sax ñi jàng risaala xam nañ ko nit ki bu la bëggee lor nga xam ne intention mooy lor la boo jeex na maanaam loolu loolu yoon tëralin yi ci àddina yëpp nangu nañ ko sax waaw waaw puso yi mooy day bu mu ci ñu ci suyee xam nga du yem ci dindi euh, li nekk ci sa sa sa nu mu tudd ci sa ci sa yaram ci ay liggéey kese mm-hmm. waaye dafay nekkaat itam loo xam da lay aar ba ba leneen du la mën a du la mën a du la mën a yàqal waa loolu macha allah mu ngi noonu xam-xam rek moo wóor xam-xam rek mooy dëgg li may faral di wax ñaan yàlla mën na lu ne waaye it def na lu ne sëñ bi kii mooy suñu dernière bouteille kii def naa maa koy soog a gis de ci yow sëñ Fall sunguf la waaw ah, bi moom ci sunguf la bi moom ubbeeku rek lay dox ak bayre ñaar yooyu kese dafa am na nuñ koy sangoo ak fuñ koy sangoo déedéet dafa am nuñ koy sangoo ak fuñ koy sangoo doo ko sangoo ci kër ci àll lañ koy sangoo <clears throat> fi ñu koy sangoo ci àll itam eh, ak gajj ngay fekk gajj gajj gajj mooy mooy herbe rek herbe waaye am ñax. am ñax waaw moo yées tuuti euh, arbre arbre mooy garab bu mag. mooy bu ndaw. bi nga xam ne boo ñëwee ci tool bi moom ngay dindi door a mën a kii. moom ngay gor. bi ngeer la tudd ngeeraan. ngeer moom ngay gor. Mm. da koy gajj nii. Mm. fam fa fa foofu nga gàjjee ko foofu nga koy sangoo. waaw sangoo ko waaye da gis ne bu garab bi commencé jebbiwaat maanaam maanaam maanaam wàllu wërsëg moom dina la yéem ci sa bopp lool lool lool ba yéem la sa tur itam foo bëgg mu yegg fa dina fa yegg waaw waaye nag da am da am nuñ koy sangoo sangiin sangiin fuñ koy sangoo waaw waaye bu dee wàllu ubbeeku rek moom bu dee wàllu alal rek alal alal du alal yi tuuti yi nag alal lay maye moom alal ju bare alal ju bari nee naa leen léeg-léeg ñu wane mbir nga dégg ku ni sëriñ bi koy duñ ko man ndax condition yooyu mooy tax. xam nga léeg ñu wane dara. nga gis borom xam-xam bu gàtt parce mën lañ laa sonal wala di la laaj kii boobu nga doon wane. waaw da ci baax ñu xam ne ñi neef yi ñoo ko mën a kii ñoo ko mën a kii waaw waaw nga ñëw waaw jar na ko sax nag. ëpp na ko ëpp na ëpp na ko nag da ko ëpp sax. ñu dara. nga gis borom xel mu gàtt ne bu ko mënoon defal ko boppam man leen ay bu saabu ay bu saabu mënoon a fóot fóot boppam. <laughs> waaw loolu nit ñi dañ koy wax lu bare <coughs> loolu moom defe naa ne ñàkk xam yàlla ci la bokk ndax gis nga nit chaque jour day day day day day joxe loo xam ne mën naa am boo demee ci moom doo ko fekk ci moom. yow li nga naan est-ce que ni ko soxlaawee est que soxlaa na ko noonu. am na koo xam ne soxlaw soxlul ay milliards. am koo xam waxuma la milliards waaye ay millions sax soxlawu ko. na am na am lu leew lu mu mën dundee rek. yow nag yaa bëgg looy dajale yow yaa am jafe-jafe bëgg ciy génn bokkul ak yow. pourtant médecin bi bi bi faj tey nit ki bi nga xam ne yàq ñàkk nañ ci moom yaakaar ba mu jóg doxi soxlaam mën naa ma am na soxnaam wala doomam bu tëdd te mënu ci dara. wax ji bi ci boppam di corriger bac ak yooyu. am na ñu mu jàngal ba ñu am bac wala ba ñu am seen mast wala seen nangam am na jarbaatam wala doomam boo xam ne. def na lu mu mën ci yéen ak lépp te taxawul mu kii donc loolu la. donc loolu mbiri sunu borom la mooy li wax rek. na yàlla mooy faal li ma mooy def lu ko neex ak lu ko soob si ku ko neex ak ni mu ko soobee waaye man buur dey nangul naa yëg naa te sama yëg-yëg gi may seerloo yàlla mooy sëñ Fall Dramé góor yàlla ñaan ko yàlla alhamdulilah sëñ bi lay tàggoo. waaw delluwaat sant yàlla rek di ñaan daal réew mi jàmm njëkk fi mujj fi. malheureusement nag senegal daal ñaari at yi daal liggéey amut fi coowul politique di daal moom yàlla na ci jàmm mujj nit ñi tal suñu bopp ba sunu ressources yi di feeñ daal ñu mën koo jariñoo au lieu que nit ñi ci biti di ko jariñoo ñu ngi ñaan yàlla mu def jàmm ci biir réew mi def ko ci bitim réew woy jaaxle yi yàlla na yàlla tegg seen jaaxle ak lu ko mën di sabab salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.